نحن نؤمن بإبراهيم الناس إبراهيم ديني أستاذ إبراهيم آمين ديني شيرنا على جدب سما ولر لا يغنا تكوهن ديني آه، لبرامي دوم تيمي ما شاء الله دائما إذا يحضر مثل هذه مثل هذه الجلسات يأتي يحمل أجهزة ثقيلة لتسجيل ليبلغ bi axbaar wallaay saa buy ñëw ci jotaay yu mel nii matériel yu gis lay yenu loolu yëpp pour jottale lay xew mbokk yi ak ku mën a nekk ñoo ngi koy ñaanal yàlla ñu Cheikh Mouhamed Tahar moo ngi noonu borom xam-xam la Cheikh Seydou Nourou suñ mbokk di seetu Cheikh Seydou Soraw moo ngi noonu toog macha allah Cheikh Mouhamed Silla Cheikh Ismaïl ñi fi nekk te ñu war leen tudd benn yoon Oustaz Ibrahima Thiam ñoo ngi nuyu ñëpp ñëpp euh, waaw wàññi ko tuuti rek wala wàññi ko mhm. tuuti rek euh, ñoo ngi yemoon ci bayt yooyu mu ne moom borom yàqute bi ñoo ngi yemoon ci bayt yooyu muy wax ne jarul ngay sol yére yu rafet foo nekk wala tatakallaf mhm. fii siyaabin rafiyatin takalluf nag suñ ko mooy dugg ci loo xam ne balaa moo sot dem ci xaw a am jafe-jafe tuuti mooy takalluf mu ne soxlawul nit ki foo toll di seet yére yu rafet pour di ko sol lu dul bésu àjjuma wala yu mel ni maanaam iid su nekkee ne ba su iid ñëw na macha allah mën nga sol yére yu mel noona yu rafet yooyu ndax am na ci hadis yonent bi nee ne man taraka al libaasa tawaaduan lillahi xayarahu llahu min xulalil jannati yaxtaaru ayyaha shaa képp koo xam ne dangaa bàyyi sol yére yu rafet ngir suufeeru yàlla dana la tànniloo tiere aljana yi bes pencum yalla nga sol tiere bi nga sop mo ngi don pour ñu bayyi di sol di di di di di suñu bokku jafé jafé pour di bëgg sol yére yu taaru yu rafet yu foor ci bépp jotaay mu ne soxlawu ko waxon nañu ne tamit wu nit ki fu mu tollu di mbelti mbelti di wax su laaje nga wax waxal fekk ñi ñi dañoo jaxaso ci masala mana nga wax pour leral mooy wa fi mantiqin illaa li idaahi muskilin mu ne wala boog nga am gan goo xam ne dañ ko war a waxtaanal bu boobaa man nga toog waxtaanal ko ngir ba balaa gan bi di yaakaar ne dénkaane la mu waxoon ne nit ki soxlawul fu mu toll di sol yëre yu taaru euh, loolu am na fa nukta boo xam ne day tegtal azurdu muy dëddu adduna ndax sol yëre yu rafet sax firiwul bëgg adduna léeg-léeg nit ñàkk sol yére rafet fekk moom moo gën a bëgg àdduna léeg nit tamit di sol yére rafet fekk àdduna nekkul ci xolam lay bàyyi di wax nafsul muluki xaalatul miskini laakin ne ni askuuli man yuskini nafsul muluki sama bakkan bi bakkanu buur la damay lekk lu neex di sol yu rafet di yéeg ci oto yu rafet yi waaye xamal na sama xaal sama diggante ak yàlla xaalu miskin la maanaam sama xol bi miskin dara ci bëgg àdduna aw ko رئيس نين نملي عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز بين دور يالا لا كو خامني جيلون خلافه امويه في زمانهم واي بام جيلي خلافه دي دا فا جيل لام يورون سي علال ييب اك علال جبرم فاطمه بنت عبد الملك بن مروان دا فا جيل علالم اك علال فاطمه بنت عبد الملك بن مروان لب مو دوجال كو سي بيت المال بنت جيلي mu mujj di yem ak jullit ñi ñëpp di yem ak jullit ñi ñëpp la am Umar ibn Abdul Aziz mujj na moom benn yére la yor jabaram Fatima bint Abdul Malik ibn Marwan benn yére la yor te nga xam ne nga nekk buuru jullit ñi yëlif jullit ñëpp te fekk yow benn yére la yor loolu tegtal Seydina Umar ibn Xattaab nag mooy maamam Umar ibn Abdul Aziz Seydina Umar ibn Xattaab mooy maamam te kenn ku nekk xam na ne Seydina Umar ibnul Xattaab dafa dëddu woon adduna daan na toog fii te moom moo yor xilaafa bi daan wax ak biiram bi su biir bi jooyee mu ne ko surwiti aw laa ko surwiti falan tazuuqi laxman xatta tashba atfaalul muslimin sawwiti sama biir jooyal aw laa ko surwiti wala nga bañ a jooy falan tazuuqi laxman doo fi mos yàpp xatta tashba atfaalul muslimin ba doomu jullit ñi lekk ba rek nga doog a mën a lekk te ba muy wax loolu moom Umar ibn Abdul Aziz maanaam dugal na maanaam kaare adduna bi soo xaajee adduna bi ñeenti xaaj benn xaaj ci ay julli lañ ci moo moom moom Seydina Umar ibn Xattaab soo askane Aziz nag moo ngi dale ji ca Seydina Umar ibn Xattaab moo tax ba mu jëlee xilaafa moom ak alalu Faatimatu jabaram lépp dugal ci baytul mu ne ko tey man ak yow ak jullit ñi ñoo yem ndax bëggul am bu koy Aziz mu dese benn yére mu mujj suy fóot yére bi day joxe ñu fóot ko moom mu teju ci néeg bi ba yére bi wow xam nga affaire bi day waar ak ñoom ak Fatimatu bintu Abdul Malik jabaram te kooku su nekkee ne yaa ngi wax yax bu rëy wala bokk yàlla ubbil àdduna mooy Fatimatu bintu Abdul Malik di Marwan ndax Fatima moom ci boppam baayam buur la woon Abdul Malik ibn xam ngeen kenn ku nekk xam ngeen Abdul Malik ibn Marwan mooy di maamu Fatima buur la woon Fatima moom frère am yi Souleymane ibn Abdul Malik ibn Marwan ak Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan ay buur lañ woon nekkoon nañ buur kenn ku nekk jël na xilaafa te jëkkëram en même temps jëkkëram di Umar ibn Abdul Aziz xalifa la woon xoolal koo xam ne jëkkëram xalifa la woon baayam nekkoon xalifa Abdul Malik ibn Marwan maamam nekkoon buur mooy Marwan yu Abdul Malik ibn Marwan Walid jël na xilaafa gi di frère am Souleymane jël na xilaafa bi di frère am te instant yii nii nga xam ne suñ fóot yére day dugg ci néeg bi ba yére bi wow mu doog a mën a génn instant yooyu Umar ibn Abdul Aziz mooy jëkkëram te Umar ibn Abdul Aziz buur la woon ñu ne kii benn ne bintul xalifati wal xalaif wal xalifatu muxtuha jaddul xalifati wal xalifatu zawjuha maanaam moom bintul xalifati دوم خليفة لهم نعم، نحن عبد الملك بن مروان خليفة لهم والخليفة زوجها من هو خليفة كرم أخت الخلائف أنكر موي سير خليفة موي سير سليمان والخليفة جدها أنكر خليفة موي بنت الخليفة والخليفة زوجها أخت الخلائف والخليفة جدها فخمد لول مقام لك قري تكرم أنكو جانجل nan lay dundee ak yàlla maanaam na delloo lépp yàlla mel ni kenn ci jullit ñi ba suy fóot yéreem moom soxna soos ak rajo Bré ak Abdul ak Umar ibn Abdul Aziz jëkkëram dañuy làqatu ci ba seen yére yi woo loolu diraasa la njàngal ba waykat bi di wax qawmun ida fasalu siyaama raaytahum labisul buyuta wa zaawarul abwaaba qawmun ay nit la ñoo xam ne ida fasalu siyaama raxasee suñ fóotee seen yére رأيتهم لبسوا البيوت لن يصلوا نيجي نيجي لن يجد دفكم يجري ما أنا وزاور أبوابا نيسخو برد نيجو بس تنيري وو يدوغ جيم ما تا الخلفاء الراشدين أي بول من تي عمر بن عبد العزيز يلي ماي أعدل أمة محمد بعد الخلفاء الأربعة جناو نيتي خليفة يمان موي سيدنا أبو بكر عمر عثمان علي بول من تي سيدنا عمر بن عبد العزيز جنة moom moo gën a maandu ci xeetu yoon ci yàlla Muhammad ab par ñeent ñooñu ba muy génn àdduna doomam yi bàyyiwu leen dara te kenn ku nekk xam na ne soo nekkee ci nguur sooy génn àdduna da ngay profité bàyyi sa njaboot dara ñu ne ko yow de ah yaa ngi feebar de di waaj a génn àdduna léegi lan nga bàyyi sa njaboot mu ne sama njaboot ñi de ñaari xaaj lañ hmm. ñu baax ku baax topp yàlla ragal yàlla foofu nag nee nee yàlla ne ne woo woyate wala saali na moom mooy féetoo ñu baax ñi kon loolu sama yoon nekku ci comme que ku baax la képp ku baax ci ñoom yàlla ne ne mooy yete wala saali mooy féetoo ñu baax ñi ñooñu kon sama yoon nekku nekkul si ñoom wala ku dégg di mooy yàlla kooku du ma ko jox alal di ko dimbale ci mooy yàlla yi bàkkaat bi ñoo fekk sama baax kon soxlawul may sonn ci ñenn ci ñoom kon loolu euh, duruus la ci ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy salaf durus Umar ibn Abdul Aziz nag loolu Umar ibn Abdul Aziz école la moom ci boppam suñ ko doon waxtaanee fii la ñuy fanaan waaye nag ñoo ngi tàmbale tey suñ firi bi benn baytu buy wax wa kun xasanal axlaaqi wa kun mutawaadian xayiyan wa layinan wa kun xasanal axlaaqi ma kulli zarrati mm-hmm. wa kun mutawaadian na nga nekk ku wàccee sa bopp mm-hmm. maanaam nekk ku suufelu na nga nekk ku modeste hayyan na nga nekk ku bëri kersa wala yinan na nga nekk ku nooy wa kun xasanal axlaaqi na nga nekk ku rafet ay jikko maa kulli a ànd ak bépp pepp atom ci kaw suuf bépp pepp suuf buy naaw rek na nga jikko ci kaw lan la njëkkee mooy wa kun mutawaatiyan na nga nekk ku suufel ku wàcce sa bopp waaw ah, lii nii diraasa dars la bu rëy rëy point tawaagu bu dars la bu gën a rëy ndax nee na nit ki mënoo am dara ci yàlla fekk wàccee woo sa bopp ndax ku gëm boppam ne moom moo gën ñëpp wala moo raw ñëpp kooku du mën a wàcce boppam ci kanamu ki yàlla denk dara pour mu mën a am ca loola mu njëriñ ko ca yàlla bari naa la ma ciy joxe misaal ci Umar ibnul Farid ba mu jubee yàlla def ne pays bi def ne ma pays bi yàlla gi def ne ma falaw kunta bii min nuqtatil baaxi xafdatan rufiita ila ma lam tanalhu bihi soo meloon ni man ni point bi nekk ci bismillahi rahmaani rahim mooy baa bi baa ul basmalati gis nga baa bi dafa suufe dafa wàccee boppam suufe mm-hmm. moo tax yàlla sol ko lam ko sol ndax yonent bi ñëw na ci yenn riwaaye mu ne la nekkoon ci téere yi yàlla wàcce yépp ci asamaan cent quatre téere la def ko jël dexeñ ko ci ñeent yi mooy tawraat injil zabur ak quran dafa jël li nekk ci ñetti yeneen ñetti téere mooy tawraat ak injiil ak zabuur mu sol ko ci alxuraan dafa jël li nekk ci alxuraan mu sol ko ci biir faatiha mu jël li nekk ci sol ci bismillah rahmaan mu jël li nekk ci biir bismillah rahmaan rahim sol ko ci point baa bi mooy bii bi mu ne mu ne péer yàlla ngeen ma wax falaw kunta bii min nuqtatil baa ngi xafdatan soo meloon ni man ni baa bi suufeeloo rufita ila ma lam tanadhu bihi la kon dem ne yekati ga yegg fo xamne mano fa yegge yeggee pele ndax la ma amone yeb danaka denk nako ba ba zunnu Zunnundil Misri ben wëli yalla ke nekkon egypte nee def na def na 124 129 conférence téeméer ak ñaar fuk ak juroom ñent conférence ci lan ci point ba bi mooy nuqtatu baanil basmala ci ba mais jeexul mu ne la ma bàyyi moo ëpp la ma la ma la ma la ma la ma waxtaan kon eh, yonent yàlla Muhammad mooy suñu royukaay loolu la alquran wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mm-hmm. yonent bi dañuy fekk moo gën a suufee moo gën a wàccee boppam képp kuy wàccee boppam mm-hmm. bokk na ci sax moom su daan ñëw si jotaay nit ñi dañuy ne bërët jóg mm-hmm. mu ne ginnaaw tey bu ma ñëwati ba kenn ne bërët jóg man duma eh, buur innama ana abdun wa rasul man jaam laa yonent laa yàlla ma yónni waaye ñëw ma pour nekk buur seen kaw mu daal di seeg benn wax bi bay wax boobu ko dégg dootoo ñëw ci jotaay nit ñi di jóg mu ne man sarrahu an yatamassala lahu nnaasu qiyaaman falyatabawwa maqadahu min annaar képp koo xam ne dara du la neex lu soo ne soo jóg soo yegsee rek ñëpp ne la màggal la mu ne na nga préparé soo jotaay ci safar yan ci yàlla Muusaa sallam moo kon day tegtal rek nit ki dafa war a simple comme ñi ñëpp daanaka nit ki warul am benn tamise benn distingue goo xam ne day jaar diggante man nit ñi ba su yeggee si nit ñi rek ñoo xam ne kii bokkul la nit ñi ko yonent bi saa sallam de danaa ci biir saaba yi ba soo ñëwee doo xam ne kan mooy yonent bi saa sallam bàyyi moo ko wax bàyyi ñes nee na wa yaxdimu lil ahlina yaxsibu naalahu wa yabtawu lahman wax wa li sawbi yartaw bàyyi nee na yaxdimu yonent bi di doon liggéeyal li bàyyi ñun njaboot gi waa kër gi yonent bi daf leen doon xidmaal yax si fu naalahu yonent bi sax waxuma la xidmaal leen xam nga léeg-léeg borom kër aju si kaw rek di wax man maay borom kër gi dañ may liggéeyal dañ may defal waaye du ma def dara yonent bi melul woon noonu da doon liggéey si liggéeyu kër gi sax da doon participer si liggéeyu kër gi donte moom mooy joxe dépasse yemul foofu bàyyi ne yax si fu naalahu daalam day dagg mu kolet xam nga am na ku ko kolet daal ku am ku toll ni Seydina Omar ibn Khattab nekk sa diggal xam nga ku la ko def daal ku am ku toll ni Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu nga xam ne mooy siddiqu siddiqina te ñu tuddee ko ko ci juróom-ñaari asamaan mooy gën a déggu ci yàlla sàkk ci jamono yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ginnaaw yonent yi suñ passé moo ëpp maqaama ca yàlla xam nga ku la ko daal Seydina Omar ibn Khattab rek ku mel ni moom amul ndax Seydina am na benn yéen ci yàlla Muhammad indi benn waay ne kii de def ma yoreel bor dama bëggoon nga àtte ñu yéen ci yàlla Muhammad saa sallam àtte leen mais yahud bi nee na moom àtte bi yonent bi àtte doy ko daal def na erreur mu ne ci Seydina Omar mu ñëw si Omar ne ko kii de dama bëggoon Muhammad àtte ñu waaye àtte nañu daal àtte bi doy ma ma ne woon nañ ñëw si yow nga àtte ñu daal Seydina Omar ne yonent leen àtte bi doyu la dangaa ñëw ci man pour mu àttewaat ne waaw sëñ Naama ne ko xaar ma ñëw mu dugg ci néeg jël jaase dafa ñëw rek jàkkaarloog yow rek benn yoon rek bopp bi war di fële. kaanu la yow moom dafa tiit bay kari kari dina ko bokkoo kii nii yonent bi moo ko àtte àtte bi doyul ñëw pour ma àtte ko dama koy wan àtte boo xam ne yonent bi àtte na ko te borom doyul wu nan lañ koy wax àtte loolu rek laa ko kooku ku tolloon loolu ci yonent bi xam nga daal dal daal bi su daggee am na ku ko ko koleel moom yonent bi su ko waxoon kaay koleel ma sama daal dana am ko koleel waaye nag yonent bi bàyyi ñes nee ne o yaxdimu lil ahliina yaxsibu su dàllam daggee moo koy kole wala moo koy moo koy moo koy tàgg wa yaqta'u lahman suñu waree togg yàpp yonent saa salaam du xaar kenn pour ñu ne mbindaat bi ñëwoon dagg yàpp bi déedéet bàyyi nee danaan jël yàpp bi daggati ko balaa kii war a togg reer ah. ñëw soxla yàpp bi yàqta u lax na waaw wali saw bi yàqta u yërëm su xottee ko moom moo doon ñëw yaa ngi léegi de jël puso ak wuñ di ñawal boppam te am na am na ñu ko ñawal ndax yonent bi amoon na juróom-ñeenti jabar ba muy génn àdduna ah. bàyyi na eh, maanaam juróom-ñeenti jabar ginnaaw ah. xam nga kooku am na ku ko ñawal waaye moom dundam école la day jàngal. Mhm. moo tax Baye Niass nee na yonent bi dama ko waxee su nekkoon ne keneen la day wax man du ma war mbaam. waaw lan laay wax mooy fas rek laay wax. waaw si jamono jii nii nga xam am na yoo xam ne seen maxaama yegg na foo xam ne dañu yaakaar ne ñoom waruñu sax yéeg taxi. waaw taxi sax waruñu ko yéex mala kaar rabi. déedéet mais waruwaay la rek bu nekkoon ne jamono jamono yonent bi ta kaar rabi amoon na. membagi baiklah wajar kamu ahyanan jawatan wamaratan kimaran ruhinan rajilan ya takalur hmm. baiknya sebenarnya wajar kamu dia nanti berdan war wajar kamu ahyanan jawatan mau naruh hidup hmm. bulu jawat hidup kini fe jawat hmm. wajar kamu ahyan jawatan wamaratan yang sahih kimaran war war aku tuh lihat rasulullah di mana Amo mai jalan lagi ya, boy. Nggak dulu sih karat ini, walaupun nggak dulu sih teks itu efek am nggak nyai kat yang ini. waaye wàññiwul tam jàngal la rek war yëpp yëpp war waaye waaw gis nga yan ci yàlla Musaa sallam benn bés moom war na mbaam moom ak Abu Babacar ak Seydina Ali ñoom ñetti ñëpp yaa ngi dégg de ci benn mbaam affaire bu dee waar yonent bi saa sallam de de Abu Abu Babacar ak Ali ibn Abi Talib ak yonent bi dañu ne de li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñëpp ñun ñett ñëpp pour ñu war ci mbaam bi day métti ci mbaam bi ku bëri woon yërmande léegi comme que benn mbaam lañuy wax léegi fi mu nekk nii na na diw war ba ci kanam ma wàcc diw yéeg su wàccee ma yéeg abulu baabat ak ali ni ko déedéet yow ko yéega rek ñu topp sa ginnaaw yonent bi ne du ko def waaw abulu baabate yéeg wàcc jox sayyidina ali yéeg wàcc jox yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba wàccam jotee dafa wàcc ñu ne ko déet continuer mu ne damay wàcc comme comme yéen rek mbir mi dañ koy séddu kon day jànge mooy wa yarkabu ahyaanan jawaadan wa marratan himaaran wa hiinan raajilan yataqallabu wa hiinan léegi raajilan bàyyi na yonent bi sax da doon doxee tànkam yataqallabu di buddi tànk yi xam nga nag yataqallabu doxinu yaaram la waaw doxinu yaaram la yoon dox boobu doon yonent bi di dox soo bëggee xam dox ko nuróol man bu ma gis léegi bu gën a nuróol dox bu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yetta xallaw mooy doxu xalifa bi Medina Baye Papa Cheikh yaa ngi dégg mu ne bokkul mu tawaat bi ay yéen na nga bëri kersa na nga nekk ku bëri kersa euh, yonent bi sax nee na iman billahi su suñ ci dindee kersa rek dara desatu waaw euh, wala léegi na na nga nekk ku ku nooy mhm. nooy dafa am solo Euh, dëgër euh, ci palaas yëpp baaxul mhm. nooy ci palaas yëpp tamit baaxul mhm. loolu ñaari ñaari ñaari melo la yoo xam ne bu nekk dafa laaj palaas mhm. am na palaas yoo xam ne nooy moo gën te toujours dëkk ak nooy nag moo gën a baax toujours dëkk ak dëgër gis nga Seydina Omar ibn Khattab dafa dëgëru waaye du ci palaas yëpp de ci palaasam rek lay dëgër ndax yonent bi nga dégg taggee na ko loolu nag ashaddukum fi diinihi Omar ibn Khattab ki leen gën a dëgër ci diine mooy Seydina Omar ibn Khattab am na benn woykat bu tudd Abu Layla Annabaratul Jaadi Abu Layla Annabaratul Jaadi woykat la dafa taxaw kanamu yonent bi ne wala xayra fi xilmin ida lam yakun lahu wala xayra fi jahlin ida lam yakun lahu xalimun ida ma awrada al amra asdara wala xayra fi xilmin ida lam yakun lahu bawaadiru taxmi safahu an yukaddara mu ne wala xayra mbaax amul fii xilmin ci muñ goo xam ne wala xayra fii xilmin إذا لم يكن له بوادر مين بو خامني يو داغي ليو توجور داغي نوي توجور نوي بو خامني بو ام بوادر گلت يو خامني دي گلت نيت كي غاي اندال تحمي مانا گلت بو ما بوادر گلت يو خامني تحمي صفوه ان يكدر داي ا نوخو مين بي اك ليو كي بلا ني كو امنا ньо خامني وهم لمن نان لهم ازلم من حيات امباسي سفا ابن دريد بن وهم مين لمن لان لهم ني نوي خامني نوي توجور aslamu ñoo ñoo gën a mën a tooñ min xayaati ambaasi yi dëkk ci pax yi xam ci pax yi ñoom ñoo gën a bëri tool yi mu ne hum li man laana ñi am na si ñoo xam ne du ñëpp waaw am na si ñoo xam ne li man laana la képp ku nooy ñeel leen aslamu a a tooñ min xayaati ambaasi safar mooy ay jaan yi dëkk ci pax moo tax mu ne abu layla an nabaxatu jaati ba mu koy woy kanam mu yonent bi la ko woy def ne wala xayra fii hilmi muñ ak nooy boo xam ne amul bawaajur mooy gént yoo xam ne day aar ndoxu muñ tut balaa ñu koo nëxal mm-hmm. mu ne muñ muñ googu mm-hmm. mu ne walaa xayra fii jahli waaye tar ak réeraangi tamit foo toll mm-hmm. yaa ngi dëgër dëgër goo xam ne walaa xayra fii jahli izaa lam yakun lahu xalim su nekkee ne dëgër gi amul muñ ak nooy xalim izaa ma awrada al amra nga xam ne su fekkee ne tar gi yéegal na mbirum nooy bi ñëw wàccee ko mu ne tar boobu it amul amul fay moo tax Muawiya ibn Abi Sufyaan daan wax benn wëñ su jaaree sama diggante mbindeef mhm. wëñ gi du dagg ndax saa buñ dégëralee ma nooyal saa buñ nooyalee ma dëgg ma fekk wëñ bi du dagg abadan loolu xikma la euh, ba mu woyee woy yi moom Abu Layla naabaratul jaaj yi euh, yonent bi saa dafa kontaan ci woy yi ba ne ko laa fudda fuuka laa fadda allahu ko mu ne yàlla bu yàlla damm sa bëñ mhm. mu dund fa aasha miatan wa sittina sanatan lam taskut lahu sina maanaam dund na nee nañ cent soixante ans wala beneen waaye ne cent vingt ans benn bëñam yëngatuwul sax pour war a ngir ñaan yoon ci yàlla mu sa mu ne nit ki na nga nekk ku bëri kersa na nga nekk ku wàcce sa bopp na nga nekk tamit léegi nañ ku nooy te lu nekk ci palaasam kooku xasalal axlaaq yi nekkal bu rafet jikko nag maa kulli zarati ànd ak bépp pepp atom bu yàlla sax ku nekk rek ku yàlla sàkk rek bul xool nam mel yow nekkal ko rafet jikko ak nit ki nekkal ko rafet jikko même sax dof yi soo xamee ne kii xelam matul yem dafa yembati rafetal jikko ak moom mu raaatal ni xaalit yi ngir xool maanaa yàlla mi nga xam ne moom moo sàkk ci yow euh, misiri daan na ko mu ne ñun dañuy res jox respect boo leen bindeef ni wa xubban li xal li li li xaaliqihi ngir bëgg yàlla bi nga xam ne moo sàkk mbindeef boobu moo tax yonent bi saa sallam soo déggee muy wax yàlla ki mu gën a sopp ci njaboot bi ci euh, doomu aadama yi mooy ku ëpp njëriñ ci njabootam te njabootu yàlla yi dof yi ñu yemb ñu wàññeeku yi la ñuy jëflanteeg nit ñoom ñëpp ci kon rafetal jikkoom ñoom benn góor yàlla euh, tëdd na guddi euh, di nelaw yére bi ndeysaan loxo bi dafa yaatu am na xam seen loxo dafa loxo yére yi dafa yaatu hmm. ni tëddee noonu muus bi ñëw na tëdd ci kaw loxol yére bi moom tamit di nelaw hmm. ba mu uh, ximmee ko ci guddi gi bëgg a naafi la hmm. uh, mu fekk muus baa ngi tëdd ci loxol yére bi ndeysaan ngir jox muus bi respect bëggul yee muus gi doon te bëgg na jóg jaamu yàlla ci guddi gi waaye bëggul yee muus gi mu daal di jël paaka dagg loxol yére ba kuppati ko bàyyi muus gaa ngi nelaw ngir mu bañ a yee muus mooy na a rafetal jikko ma ak kulli sax ànd ak bépp pepp ngir xool yàlla mi sàkk muus bi mooy li misiri ba wala wala wala naxta si lay sax wala naxtaqir kalba ñun duñu ragal gaynde duñ toroxal tamit xaj ndax duñu ragal gaynde te duñ toroxal xaj xam nga gaynde la ñëpp ragal ñun la ñuy ragal duñu ragal waaye li mu toroxal tamit xaj xaj am na ñoo xam ne fu ñu ko gis rek ngàdd ko euh, yaa léegi de euh, ngàdd ko yat rek la ñuy même muus sax léegi na nit ñi doog a yeewu rek waaye bu njëkk ba soo daan dajeeg muus da ngay xeer rek sànni te nekk muus bi jotewul ak yow dara xaj bi jotewul ak yow dara hmm? moo tax yonent bi saa sallam daf ñuy jàngal jikko yu rafet li ñuy wax fii yëpp jikko yëpp ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi doon wax euh, wàccee sa bopp Yusufa euh, ibnu Asba euh, euh, laaj nañ ko lan mooy day dëgg-dëgg wàccee sa bopp mu ne an taxruja min baytika fala talqa ahadan illa raaytahu xayran minka mu ne wàccee sa bopp mooy nga génn sa néeg di dox te doo dajee kenn lu dul nga fas ci sa xol ne moom moo la gën ca yàlla waaw waaye su nekkee dangaa dangaa fas ne jiw yaa ko génne xamal ne sa wàccee sa bopp des na ينمت من في حديث إذا رأيتم المتواضعين من أمتي فتواضعوا له وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليه فإن ذلك مزلة لهم وسرى سوغين غيسي سي سما خير دي ني سوفل ني نغين سوفل سين كان سوغين غيسي ني ري ري ني نغين ري ري سين كو ناخ لولو ليسون لا لين دي نيال نيوم ني ري ري ا ري صاح من نيو واخ moom la njëkk mooy yàlla ci kaw suuf rëy moom la njëkk a moye yàlla ci kaw suuf yàlla dafa sàkk suñ bàyyi aadama da sàkk ko ci ban te ban daa ñuul iblis bañ ko waxee suju dalal aadama mu gis ne moom moo fi jiitu aadama ndax iblis yor na caabi ajana quarante mille boobu yàlla sàkkagul aadama ñeent fukki junniy at yor na ko caabi ajana bañ tuddee ko xaasinul jënd nee nañ ñaari asamaan yi bu nek dugg na fa xalwa lu mat soixante-dix iblis iblis mii ngay gis ni waaw amna lu mu dafa amul mu mujjantal gu rafet rek waye juróom ñaari asamaan yi bu nek dugg ci xal soixante-dix mille di jamm ya te asamaan bu nek amna ci buñ ko daan wowe foofu ci tur yu bobu yalla sakku yàlla sàkk ko suñu bàyyi aadama di sàkk aadama ñu ne ko ci sujudal mu xol lim def yépp lam fi nek yépp te boobu yàlla sàkkagul aadama aadama waroon na suñ ko sàkkee rek xanaa mu sujudal ko hmm. ndax moo fi nekkoon moom ak di jàmm yàlla di def lii di def laa hmm. waaye bañ ko iblis mu ne lu tax hmm. ana xayru min te man gën ana xayru min xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin da nga maa ci safara te safara dafa leer nga ci ban te ban kon su nekkee ne loolu la xanaa li lëndëm li ma lu leer xam nga iblis du malaak alquran ne kaana min al jinn fa rabbi iblis jinne la du malaaka ci jinne yi la boppam te façon amu kàccoor ak am rab yi ci mbiru boromam waaye tawfiq la amul loolu yëpp muy def nit ki soo amee tawfiq benn jëf du tuuti rek yoo jëfal yàlla macha allah yàlla daf ciy def barke mu njëriñ la nga am sa aada abadi waaye soo amul tawfiq man nga def ni iblis def jaamu yàlla juróom-ñaar fukki junni ci asamaan bu nekk yor caabi ajjana ñeent fukki junni at bés pencum yàlla ñu tàbbal la xam nga ñu waxoon la bés pencum yàlla di la dugal safar su fekkee yaa yoroon caabi ajjana dana gën koo rus xam nga soo musul yor caabi ji sax am na solo loolu waaye ñi lay wommoon ngay dem safar te yoroon nga caabi ajjana te du benn weer du benn at mais ñeent fukki junni at quarante mille ans ñi lay wommoon di yóbbu safar hmm? dara gën ko bon ñàkk taw bi moo tax euh, ñu ne taw fii ku ko am am nga lépp Eh, yent yàlla Ibrahim mm. dafa woo doom ji pour rey ko doom ji ne ko if'al maa tu'mar satajidunii inshaa Allahu mina saabiriin dafa lu la neex mm. da fekk man da ma fekk ma bokk ci muñ waaye yent yàlla Nuuhu dafa woo doomam ji ci dund yàllaa ngi taw taw te day alal bindeef mi yëpp mu ne ko yaa bu na yarkab maana wala takun ma'al kaafiriin sama doom kaa yéeg ànd ak ñun bul bokk ci yéeféer doom ji bañ daf koy woo ci dund doom ji ne ko sa aawi ilaa jabalin yaasimunii minal maa mm-hmm. bàyyi ma dem ci doj bële daf may protéger ah yonent yàlla nuux ne ko laa aasima al yawma min amrillah mm-hmm. tey doj mënul protéger nit de ñëwal ànd ñun sama doom mm-hmm. yàlla ne ne ba ñuy wax rek ndeke dafa xaala baynahumal ci vague yi féete na seen diggante ndax taw yi maanaam taw boo xam ne juróom benn weer la taw loolu mooy taw mbugal dëgg ndax taw taw benn semaine ci ko xam ni taw mm. taw benn semaine rek musiba la mm. waxuma la taw weer waxuma la taw juróom benn weer taw bu taw ba yëkkati kaabu gi yóbbu ko ca kaw xamal ne taw boobu tuutiwul mm. moo tax mu ne xale bi ñëwal yéeg ci gaal gi irkab maana wala takun maal kaal bul ànd ak yéeféer xale bi ne ko déedéet du ma yéeg ak yow sa aawi ilaa jabalin ya'simunii minal maa kii paap ma koy woo ci dund mu bañ kii paap ma koy woo ci dee kan Ismaïl mu ne ko if almaa tuumar defal mu yokkal ko ci ne soo may reen na ko nëbb sama yaay ndax jigéen dafa bëri yërmande te soo may reen bi na nga takk sama bët yi balaa su ñaari bët yi daje bàyyi dafa bëri yërmande ci doomam te diggalu ko yàlla la yàlla la hmm. pour nga xam ndekete euh, gént yonent yi yonent yi suñ génte loolu ndigal ko jóge ci yàlla noonu la def sax dafa takk bët yi ndeysaan daal di bëgg a reen di doom ji hmm. li ko ci métti parce que doom ji daf ko ne nammal paaka bi mu gaaw hmm. ndax soo may rey nga rey ma te fekke eh, yàgg diirul diirul yàggul ndax su yàggee yërmande mën na laa def encore loolu yëpp doom baa ngi bëgg pour papa ji appliquer li waral loolu nag moom yonanti la papa ji yonanti la waaw waaye nag jéem na dagg dara daggul affaire bi métti ko ndax bëggul affaire bi yéex mu jël paaka bi dóor ko ci doj bi rek mu xar doj bi ñaari xar xar mu delloowaat ko paaka bi dagg mu xam ne lii dóor la mu dóoraat ko ci doj bi doj bi daggaat ñaari dagg mu daal di wax bi nag ndax yonent yi léeg-léeg am na fu ñuy toll mën nañ wax ak lu ne ah. ndax bu leen fàtte yam ci yàlla Suleymaan ullim naa mantiqa tayr yam ci yàlla Daawuda ah. ullim naa mantiqa tayr ñun sax piccax yi li ñuy wax sax xam nañ ba hmm. uuti naa min kulli shay xoolal loolu lu nekk rek yàlla jox na ma ci hmm. moo tax gaaw euh, a weddi baaxul hmm. xoolal benn doomu aadama moo tax mu ne wa uuti naa min kulli lu nekk rek yàlla jox na ma ci lu nekk min kulli shay lu nekk rek yàlla jox na ma ci mais kuy weddi na xalaat fii soo xalaatee fii danga xam ne amoo droit weddi ndax Baye bi ñu ñëwee sax loolu la dafa inna li liñ kaari shurutan dama ci kaashiful albaas nit ñi xamuñoo nekk ci daa am condition nekk loo xam yëpp weddi ko déedéet li nga xamul tamit soo koy weddi dafa am ay condition mm-hmm. balaa ngaa weddi xoolal kii ne wa uutinaa min kulli shay te nit la yàllaa ko sàkk mm-hmm. te yonent yàlla Muhammad moo ko ëpp garab mm-hmm. te yonent bi yàlla yàlla dénk na ko loo xam ne mm-hmm. sotti na ko ci xeetam bi bàyyi na ko fi day des fi ba bés pencum yàlla uuti naa min kulli shay yonent yàlla eh, Ibrahima wax paaka bi ne ko uffiloo fi laka yaa sikiin taqta'ul xajara wala taqta'ul jënd yal na la yàlla toroxal yaa ngi dagg ay doj te mënoo dagg der paaka bi nag wax moom wax wax ko lu xew ne ko xaliilu wa amarani ataak am la jadi loo taraka am la xalil lii mbir mi mooy yow yaay xalil yow yaay xaritu yàlla jëli mooy yàlla mu màgg danga ma digal ku màgg ki digal ma sa digal ku mm-hmm. mm-hmm. mu am na lu xew booba nag ndekete yàllaa ngi wax ak jibril mm-hmm. di wax soo yéexee ba ñu rendi ismaila indi woo xar ci sa ci malak ci jibril nag gaawaayam yàlla rek ko xam surtout maa suñ ko a yen effacé turam ci tur malaaka yi yenn riwaay yi nañ ci jibril su jógee juróom-ñaari asamaan di wàcc ci suuf day mel ni piison buy wàcc ci birig birig jógee ci birig wàcc ci suuf benn birig xam nga benn birig loolu benn seconde jibril su jógee si juróom-ñaari asamaan di wàcc ci suuf hmm. kon benn seconde la koy def hmm. loolu mooy gaawaayam fekkee waxuñ ko daal fii nag yàlla def ko ne soo yéexee bañ leen di ko danaa efface la am boo nas ma ko bi diwaanil malaayka danaa efface tur si diwaan malaayka moo tax Ibrahima dafa gestu rek fekk wa fa day naa ko bi zikrin aziz loolu mooy tawfiq kii dañ ko woo ci dee mu nangu ba tey tabaski su dañuy leen di xar ngir topp ngir roy yan ci yàlla Ibrahima ca xar moom mu rendi woon fidaa an li nabiyillahi Ismaïl xoolal barke bi rek barke topp ndigal kii mm-hmm. ñu woo ko ci dund muy bañ di yëkkati mbaggam di wax man fee doy na mm-hmm. mu dem moom ak foofu yëpp mm-hmm. yàlla faagaagal loolu mooy taw su ñëwee rek am nga lu ne su manqué iblis nag mooy na yàlla aadama tamit mooy na yàlla ndax aadama lekkoon na si waaye aadama taw fii ko dab iblis nag ñàkk taw fii moo tax bés pencim yàlla iblis dana dugg safara aadama bokk ci ñu dugg ajana suñu bàyyi aadama dina bok ci ñi dugg ajjana bés pencum yalla ndax yonent la yonent du dugg safar kon xamal ni ñom ñom ñoom ñaar ñëpp wa asa aadamu rabbahu alquran nahnu numinu bi ibrahima yas ibrahim